Well, the Vice President of the Republic of the Gambia, Dr. Aisada Toure has commended the security forces for taking up the challenge uh, of uh, to loading and offloading of the food aid provided for vulnerable communities across the country. Uh, chiefly, members of the armed forces offered their labor uh, for the task after the vice president challenge on the youth to wake up to the uh, prevailing job opportunities. Now, youth from different corners expressed uh, disappointment with her view on the, um, on the employment initiative. Uh, prominently among them was that of the National Assembly member of Nyamina East who called uh, for a withdrawal of her uh, statement. But Dr. Uh, Ture told the national broadcaster GRTS uh, that her observation was taken out of context that we have been able to reach 84% of the population. And this is going to reach a long way. This distribution mm -hmm. is going to be done by the uh, different regions. You have the governors, you have the chiefs, you have the alcalolus, mm -hmm. and you have other support teams that are there to support uh, uh, to support the process. We want to thank also the, the security forces. They have been very, very useful in this process because you can see the amount of the observation I made the last time with regards to the lack of labor and how people are taking it out of context. You will find that they are taking it out of context. As a government, it is our duty to focus, it is our duty to work and to give and respond to the circumstances as they are because this is an emergency. Gambia's Vice President Dr. Isatou Touré they are speaking to uh, GRTS well uh, mu ngi noonu moom daal dina dellu ci ci wax bi coow li xam naa ne duma wax ndax yëg na ko parce que nag mu ngi ci réew bi mhm. uh, réaction ndaw yi ak ñu bëri ñaawlu wax bi ci nu mu ko waxee ak ñoom ni ko déggee waaye moom tamit indi na ci leeral teel daal xëy na dañ ko dañ ko yóbbu fu wax bi yeggul. ci nu mu ko waxee mhm. dañ ko xalaat taaw yi ak yooyu. Mhm. waaye tamit profite na si euh, profit euh, profité na si gërëm ñi nga xamante ne mooy ami bi ñoom ñoo mujjee ñëw jàpp ci liggéey bi yeggee ak wàccal li nga xamante ne mooy maalo bi euh, ci ci ci mbala sax li ma mun naa wax sax ndimbal li because du maalo rek. Hmm, ndimbal bi waaw waaw maalo nga fa ak diwlin ay sukur yi. waaw am na solo parce que xam nga nag soo nekkee si des <laughs> position sii nii. am na nooy waxee rek gars yi surtout opposition yi ñoom dafa am nuñ koy gisee démb seen gan gi moom xaloon na cee waaw dañ ko dee taawil ba mu ëpp waaye te am na sax beneen bu nga xam ne mun na am fay bu mu gis ñu ngi koo fay ñeneen ñi xëy na looloo tax euh, mu amoon mais bi eene boobu pour gis ne you ñoom fayan neen ku ñu am nekkuñ doomi réew bi ñeneen leen am mostly noonu la day demee dafa am liggéey yu nga xam ne ni si sa biir dëkk ñu bari dañ ko dee duñ ko dee mun a def ifin mm-hmm. soo demee Sénégal si port bi seen yeneen yeneen doomi nationalité ñoo fa gën a bëri au anywhere in noonu la day demee bon nag wax bi xëy na bu mu ko doon wax dafa amoon yéene mais bi pour koom-koom boobu mu des si si si ndaw yi den te loolu nag ndaw moo ko mun bu ko nekkul liggéey mag soo xam naa ne loolu la tam te gars am si gars yi dem den dee pare rek pour xaar ku nga xam ne ni xaw na am benn mistake bu mu am si wax rek ñoom itam ñi capitaliser rek pour profito si rek mun a waxaale sànniwaale seen track pour mun a amaale benn atu tuuti si si si bagage yi waaye tam xam naa dina bàyyi xelam pour élection si joxe loolu ba pare itam njaaraamal na soldiers yi nga xamné ne finally ñoko mujjé jël té lool nak wax dëgg yalla dafa nit ku koy eb ak ku koy wàccee hmm. parce que suñ ko wàccee wut ebuñ ko du dem du dem te du wara ag ci ñum ci té dina tax sa affaire bi process bi muslo mu slow kon yeex torop ci ñu ko nañ ko bëggee ndax amna mhm. euh, jamono ji ñi nga xamante ne ñu nu nu gën sax xeeb nañ ko ndax dañ ko soxla bu baax ba situation bi tamit moko ko laaj euh, julde euh, vice president yu lu mu wax ku ko xam ci ci liñ ko liñ koy waxé réaction yu bari ñone demba démba def doon xéxal ndaw ndaw yi di wax ne nañ leen jàppale ak yu mel noonu tey bu delloosee opportunité yi wala lu mel ni mooy ndaw yi Gambie dañ xalaat les ak yooyu waaye moom daal delloosi na si wax mi ne eh, wax bi is you know dañ ko yóbbu out of context si nu ko waxee waaye gërëm na tamit ami bi eh, si seen taxawaay ak yooyu <laughs> lan la loo loo ko gisee eh, man daal nu ma ko gisee taken out of context or taken in context I think ne lu nekk rek su amee rek daf dee am lu ko dee waral Uh, the reason why su dee ne Gambia government uh, comme nit yu bari nuñ ko doon waxee so many youths dañ génna social media ñeneen mhm. ñu ngi campagne ne they are not lazy te gis na ñu ngi mhm. ñaxtu te gis nañ ne National Assembly bi member bi lu mu nekk di wax ne there is no blueprint for the young people soo gisee wax bi mu gën a serious lu tax ñi ñi ñu jël ko sax si man nu ma ko gisee mhm. mu gën a serious wala mu gën a wen viral is because you know at certain level ndaw ñi dañ gis ne ñoom mhm. government bi has nothing to offer for them mhm. or the government did not do anything for them mhm. so that is why xam naa ne bu mu waxee ne youths are lazy time boobu noon dafa metti ndaw ñi because ñoom den feel ne government bu leen wax war a dimbaleel to create job opportunities, those government is not really creating those opportunities for the young people. Uh, the second command in mm-hmm. vice president. So moom su waxee yooyu noonu man su ma waxee ak the vice president su ma waxee du mun a nekk benn moo taxit sometimes it is advisable that if you are a leader nga mun a wax eh, something that everybody will put into context waaye soo waxee in general terms ku nekk ab lu gis ak gis-gis am la Why ndaw ñi gis nañ ne ñu uh, ngee ñaxtu fii si biir réew mi and you know comme gars nuñ ko waxee rek the reality is just the reality so many people are saying that when the Barrow-led administration came into power in 2017 mm-hmm. gars dañ a lot of things for the young people and the young people promised uh, did lot of things especially during the presidential elections uh, going to the impasse gars dañ contribute a lot so now they were expecting their hopes were high but now that three years down the line ñoom lu ñu nekk di wax most of them what they are saying this is their hopes are shattered. what the Barrow led government promised them. they don't waaw mm. yaakaar bi dafa tas. ñoom mm. Barrow led government bi lu mu leen promise yëpp ñun ñoom gisuñ ci dara. so ñoom loolu moo leen gën a métti. so dañu yàgg a dégg wax yooyu noonu ndaw yi ñoom toog naan ataaya dañ am nga wax yooyu dafa yàgg a ah, dugg si suñ nopp yi. te koo xam ne ñëwoon na pour ne la doo déggaati wax yi na la jox liggéey. soo ko déggaatee si moom. mu wax mu am nu mu waxee. waaw dafa métti ndaw ñi nag